li ñu gis mooy ne euh, gouvernement bi dafa naan def na effort pour am souveraineté budgétaire ñu ne def nañ effort euh, pour euh, augmenter seen taux d'investissement à partir des ressources internes ñu ne ñu ngi def effort ci déficit bi et puis ils se gargarisent de subventionner le secteur les intrants agricoles l'électricité les des secteurs yoo xam ne des secteurs sensibles mais li manqué li manqué mooy xaw ma ndax dina dina dina ñëw Euh, gisuma mu am un plan d'investissement euh, à grande échelle sur l'agriculture euh, gisuma mu am un plan d'investissement à grande échelle sur la santé sur l'éducation. Ça ne réussira pas. Pourquoi? Parti comme ça. cest parce que justement le plan d'investissement sur l'agriculture il repose sur quoi? L'actuel. Il y a beaucoup d'investissements en yow da ngay toog rek nawet bi daal di jot nga jox gars yi. intrant di intrant matériel agricole. oui mais maintenant où est la terre est-ce que xam nga combien de jeunes sénégalais ont besoin de cultiver c'est ça la pertinence d'une réforme d'envergure de notre pays comprendre nga nos jeunes ont envie de cultiver jox leen suuf cest à tous les espaces que tu vois dans le pays là waxuma la xam nga Dakar dafa am enjeu bu rëy mais boo génnee à trente kilomètres de Dakar suuf dafa ne gàññ ci réew mi jëlal dans les périmètres villageois dans les petites villes nga définir ay périmètres yu leer nga jox ndaw ñi boo fa boo ko aménagé ay assiette deux hectares trois hectares nga ne ndaw ñi kaay leen béy ma defal leen fa ndox dañuy béy loolu lañ bëgg est-ce que yaa ngi comprendre li ma lay wax c'est là l'enjeu man balaa may investir di wuti ay tracteurs et puis les tracteurs la force laajteel bu baax le niveau de gamme de ces tracteurs ils peuvent les construire ici ils peuvent les fabriquer ici nga nga favoriser donc l'ingénierie locale en mettant les moyens qu'il faut boo leen boo leen boo leen joxoon xaalis pour ñu defar ko fii ñu defar ko fii li ma lay wax ne du blague. ah on préfère donner 7 milliards et enrichir un homme d'affaires. c'est dommage waaw <laughs> c'est dommage. mu indi ay tracteurs yoo mu pan. aujourd'hui mais mu na l'agriculture urbaine périurbaine son des réalités dans notre pays ou lan lañ ci def pour pour renforcer ko donc les jeunes manquent de terre pour cultiver si ils ont des terres ils n'ont pas d'eau donc mettez des mécanismes pour. ma kontaan trop bu directeur domaine bi nga nekkoon. non loolu c'est pas ça. non non non non xaaral rek. doon naa doon non non non non rek xaaral rek ba nga nekkee domaine boo fi indi woon réforme boo xam ne. dina faciliter les choses. au au la réforme ba nga nekkee directeur de domaine. doon naa doon kontaan trop doon naa doon kontaan mais ba nga nekkee domaine gis ma benn réforme boo indi. non non non la réforme agraire n'a rien à voir avec. non je parle pas de réforme agraire. vous parlez de terre. non non ma waxuma non d'abord on règle d'abord ce problème là. <laughs> waxuma réforme agraire non d' abord que le directeur des domaines c' est pas lui qui impulse. non waxuma loolu dama ne. celui qui impulse la ne loolu yëpp xam yëpp xam naa dama ne. doon naa doon kontaan trop. ba nga nekkee directeur des domaines boo fi boo fi indi woon boo fi boo organiser woon euh, indi fa réforme wala impulser benn réforme boo xam ne euh, dina dina faciliter les choses au Sénégalais cadreur bi nga ne ko mënoon nga ma defal ay infographie mënoon nga ma dafa am liggéeyam mu yem que yaa ma lay wax non non les lois se conçoivent. je parle pas de réforme agricole je parle pas d'accès à la terre. mais directeur domaine laa wax ba nga nekkee domaine. ah. mais maintenant les lois se conçoivent autrement. c'est ça si c'est des propositions de loi xam nga fu mu jógee si se des projets de loi xam nga fu mu jógee. quand même c'est pas le directeur c'est pas ce sont le sont les services techniques euh, service techniques yi compétent mën nañu concevoir yow ba nga ñëwee nekk directeur des domaines amoon nga vision xam nga sa sa sa sa kii non non non non vous ne recevez pas toujours une commande parfois ce sont les services techniques compétents ñoom ñooy yéegal seen yëf au au ministère non si mais mais si ma si Mamboy je vois tellement de directeurs généraux qui prennent des initiatives qui impulsent non xaaral non tu es direct directeur. damay gis suppo suppo ma ne danga supposons que non non xaaral xaaral xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw dama ne affaire bi jógewul ci kaw chaque jour président dafay laaj dafay laaj vision bu bu kii mais mois je vois des directeur des directeurs généraux dañuy jël dañuy ñëw ci seen secteur ñu xool ñu organiser secteur bi il faut porter ça par leur tutelle ministérielle tutelle ministérielle bi yóbbu ko fi nga xam ne euh, moom mooy conseil des ministres euh, président jël des décisions majeures affaire bi wàccaat affaire bi wàccaat nga nga nekk dans l'opéra dans dans l'opéra l'opérationnalité mais c'est ton domaine ba nga ñëwee quelle réforme man c'est ton domaine ba nga ñëwee ban ban réforme nga mettre en œuvre ban réorganisation nga mettre en œuvre réorganisation nga wax non voulu que je fasse j'aurais voulu que bi nga nekkee domaine nga proposer au président de la République à ta tutelle euh, ay réformes yoo xam ne dinañu sentir la touche de Mamboy j'aurais voulu que nga repenser que nga repenser la feuille de route touche, c'est quand on administre. j'administre un service de l'État, je l'administre selon mes missions. dégg nga il faut pas te tromper ñun dañoo am ay compétences yi nga xam ne benn arrêté ministériel moo ko fixé ça a absolument rien à voir maintenant nag li ma lay wax le président de la République lui-même a demandé à la commission nationale de réforme foncière de travailler non voilà c'est une question que je te pose si un président de la République commandite moom jot na ay conclusion moom li muy déroulé kay moom moo xam li muy déroulé qu'est-ce que le directeur des domaines a à voir dedans entre le directeur des domaines et le président de la République il y a beaucoup d'étages il le directeur général il y a le ministre du budget il le ministre des finances il le premier ministre il le président de la République il faut comprendre les choses ku nekk dafa xam fu mu war a yem dégg mais dama la ne moi je parle d'agriculture je parle de pour moi il faut d'abord la première matière mooy suuf il faut que la, les terres soient accessibles et aux femmes et aux jeunes ça yaa koy dégg depuis kañ depuis quinze ans les femmes en en bu ñu waree joxe suuf. oui Sénégal bu ñu la waree jox suuf kan moo la jox suuf. mais quand c'est du domaine national ce sont les communautés. les non, communes du... non non c'est comme ça. ma ne yow en tant que directeur des domaines. moi directeur des domaines je ne donne pas de terre et ça je le dis le directeur des domaines actuel le le directeur des domaines administre entre un service yaa ngi dégg ce qu'il y a mooy aujourd'hui mais mën a peut demander au maire de Sandiara que je connais Serigne Gueye que je salue au passage ne que je veux développer de l'embouche boobu d'accord jox ma fi suuf moom mu délibéré la parce que c'est des terres du domaine national yow nga bëgg am des terres immatriculées nga def tout le circuit pour am bàyyi. voilà waaw loolu bokkul ak li ñuy wax. waaw léegi man su ma demoon ma identifier un lopin de terre. ah non du ma invité Mamadou Gueye. Ah. su demoon ma identifier un lopin su ma demoon mais ça c'est le développement su ma demoon ficelle ma identifier un lopin de terre ñu def délibération ñu jox ma ko ma bëgg a investir ma bëgg a dem ci banque pour valoriser cette terre là cette ma soxla bàyyi baa ma soxla teef procédure bi. fan lay jaar du jaar domaine. non loolu la lay jaarul domaine rek. non jaarul domaine rek mais procédure bi non procédure bi jaarul domaine rek mbir mi day yéeg. mais mais domaine am na ci wàll bu rëy. ki am compétence ci suuf si. waaw. kooku tànk joxula kayit ne la man jox naa la fi benn pakk doo am suuf d'accord nga. waaw donc départ bi mooy balaa ngay ne da ngay bàyyi. da nga am benn maire bu la jox suuf. non man loolu laa la dama ne bu ma amee bu bu délibération bi amee. waaw jox ñu jox ma suuf ma dem ci banque bi mu ne ma il faut que nga valoriser euh, il faut soo suuf bi. mais sa carte boo ko photocopier. ah boo ko photocopier boo ko bëggee légaliser da nga dem police. d'accord bu boobaa domaine mooy nekk sama interlocuteur. boo demee domaine boo demee domaine boo leen bindee ñoom domaine li muy def mooy recevoir sa lettre bind urbanisme bind cadastre leen lu ngeen ci xam ñooñu tontu ba pare moom mu yónnee fii ça n'a rien à voir c'est des procédures comprendre nga loolu moom c'est comme boo bëggoon am tey euh, nationalité dafa am fooy jaar c'est tout ça n'a pas ça veut pas dire que c'est le directeur du domaine qui va te donner des terres artificielles